maa ngi lay ziar Zeyna. maa ngi lay euh, naka yaram bi mbaa yaa ngi am féex. waaw ñoo yaa ngi biir euh, carte sur table. waaw. alors actualité bi bëri na ci réew mi. Ah, gëj nañ laa gis gëj nañ laa dégg. waaw. donc euh, d' abord noo jàngatee réew mi ci 100 jours yi. Euh, euh, noo jàngatee président de la république demam France deuxième euh, visitam France noo jàngatee coow li ci réew mi mbirum kan mbirum post ak li nga xamante ne moom mooy jeune fille bi nga xam ne jàpp nañ ni dañ ko yóbbu RTS te xeexalul projet bi ba tax na ñenn ci journaliste yi daal dina ñuy jug rek taxaw pour xeex loolu le la

ndax euh, dañuy sant yàlla. Mm-hmm. bu ñu yàlla defee ñu bokkoon ci coalition bu ñuy wax Benno Bokk Yaakaar. Mm-hmm. ànd ko ak le président Macky Sall. Mm-hmm. yàlla dogal ci depuis deux mille dix neuf. Sénégal wëlbati ko am beneen tournée ci ay doomu aadama yoo xam ne tey doon nañ am nun doon doxee nun doon waxee jëmale ci Sénégal. mën nañ ne tey li xew tey ñoom ñu koy dund teg ñoom ñi taxawoon bërki démb ni woon Macky Sall mënoo. li nga yoree baaxul li ngay defee baaxul. li Sénégalais jox leen ma Sénégalais jox leen anam wan ba mu wutee noonu la Sénégalais yi di tontonteeg ñoom tey ci lan. Mhm. ñoo soppi jikko yi parce que ñoo daan wax wax joo xam ne déglu. Mhm. ñoo daan saaga. ñoo mhm. parce que tey bu nu àndee man ak yow ak keneen ak keneen ba nii ma taxaw ni ñun kat danoo bokk ak kuréel wala mbootaay. maa ko jiite yow nga saaga ni man ma génn wiiru ci sa ni lu waaye wax dinaa la fa fekk kon maa la saagaloo. musuma àddu tamit bu nit ku ànd ak man dee saaga sëriñ baa muy saaga nit ku baax baa muy def leneen musuma cee àddu mhm. kon maa la saagaloo mhm. gis nañ fi ñaari exemple gis nañ fi Parcelles Assainies yi ay nit taxaw di saaga sëriñ mhm. ñu gis na ma yàlla baal ci waxee ni ca Parcelles Assainies nit jël rojo ni bakkanu Ousmane Sonko nu gënal bu sëriñ Mountakha Mbacké mu tedd mi doomi sëriñ sëpp sëriñ Tuubaa bi sunu yaakaari tey ak ëllëg kenn àddu ñu gis ni moom mi nga xam ne tey mooy jàpp nit ñi saaga saaga baaxul tey ci saaga ak ki wax lu bon du ma ko cautionné parce que yaruñu ci ñun mm-hmm. te xamuñu loolu te bëgguñu loolu mm-hmm. duñ ko cautionné mais nag na xam ne ñoom ñi keppe tey ci saaga ñoo daan saaga démb parce que ñoo daan saagalu mm-hmm. moom ci boppam mu taxaw ci euh, Kër Massar indi discours boo xam ne nii sa sa la wax demati ba Casamance mu ni ultime combat damay rey baa ma rey ko réew mu mu ko waxoon ñu rey ko baa mi jàpp. <laughs> loolu gàcce nga laa Macky Sall te na parce que def nañ ko lu jar mu jàpp leen waaye jàpp leen ñoom it nañu muñ nga xam ne ci def lii ñu def lii waxee nii ñoom ñoo leen ko jàngaloon bërki démb dañ leen koy delloo ñoo saa di wax kay ri xëy na ci ñoom. day <laughs> naa ma lay wax lu extraordinaire lu Sénégalais yi bàyyiwul xel. mooy lan xoolal set setal bi nga créé. <laughs> Mhm. mais du opération setal de opération sulli lu ñu suuloon la. Hmm. Karim Wade moo tabax tunnel yi. kenn mësu koo gis inondation am fi ba Ablaye Wade dem Macky Sall ñëw ñu dem ba fin de réunion Macky Sall ñu fatt canalisation yi ak i bâche yu bés pull ak i pëna di ko sulli di ko bàkkoo parce que ñoom ñoo xam lan doon def ñu def ko boo xoolee actuellement fi inondation bi di am mënatuñ récupérer lan fa defoon parce que xamatuñu fu mu toll ci niveau bi ndox mi puus ko wala. boo demee à Touba li wër jumaa ji côté sabotage ba nu fa defoon moo fa feeñ tey parce que mënutul koo dindi looloo tax ñu créé la set setal yow day naa tey bu ñu la noon set setal doo waaxu rek canal boobu foofu nga ne rek ubbi jénne bëna kon xam nga la fa nekkoon mhm. lépp tey taxaw na ci seeni noo beneen bi nag ci bilan bi mhm. man tuddeewuma ko bilan gàcce laa ko tuddee ci ñoom non moom mënul am moom non parce que discours u jomaay ak leen wax gàcce parce boo jëlee tey exemple bu ndaw la Sénégalais yi di bàyyi xel bu baax a baax li leen di gëmloo ak liñ leen di wax. ma vrai que le prix du pain a s'est diminué wàññeeku na à cent vingt cinq francs mais le poids mburu bi dafa wàññeeku. kon ñoom convention boobu lañ juboo avec les boulangers wàññi nanu wàññi suñu suñu poids wu mburu wàññi su wàññi njëg ñu d' accord kon wàññeeku ñu ñoom. Mhm. waaw mburu mm-hmm. bi dafa waroon toll ni mu doon toll ñoom ñu jaay ko cent vingt cinq mm-hmm. ay sentir que kon ni lii wàññeeku na beneen bi mooy dawlin bi mm-hmm. demal ci boutique yi jaay dawlin dix sept mille cinq la doon jar kon ñoom bu ñu déclaré dix huit mille cinq cent kon teg nañ ci mille tey jii nga ni dangaa nekk ci benn réew boo xam ne nii en voie de développement la parce que pétrole ak gaz ci réew taxul ñu lii am na ñu am pétrole gaz jamaata taxul ñu am jàpp taxul ñu ñu am ñu développé wu mais nga jël la secteur informel bi nga xam ne nii moo war a développé am réew monde bi foo dem jël secteur informel bi nga xam ne mooy quatre-vingt-dix pour cent développement Sénégal nga rey ko nga ne da ngay da ngay da ngay da ngay da ngay defar da ngay jubal da ngay jubanti d'accord bu la neexee nga ju nga jubal yow nga ne man kat jubu woon dinaa jubal ñoom jubalu woon ñi ngi jubal ñoom dëngaloo dëngoo ñu ngi jëppandiku loolu sant yàlla la mais li ma lay bëgg a xamal daal ci la ko wax mooy réew nii ñu nekk tey li fi nekk le Sénégal est en danger li tax la Sénégal est en danger umba nag bu ci gërëm bu mu jaan jaan dama ci dëpp lay dëkk ak daal ci ci farak farak ñoom nangu woon nañu wax sénégalais leen bu ngeen joxee réew bi Ousmane Sonko da koo wax di ko waat di ko wax fu ngeen ma ko joxee dans deux mois Sénégal même di ko mbay tey nag lanu wàcc woon ña ngi koy naan bay mooy FMI banque mondiale la France c'était une obligation boo xam ne ñoom dañoo bañoon ni sénégalais yii kat kunu ay ñun ñu def ñu yor ko dañ naa France dégage FMI dégage mhm. banque mondiale dégage tey nag dañ ni la France la bienvenue wala sax ñoom mhm. la a a France lañ leen di wax la bienvenue en FMI kon loolu gàcce la ñoom bu ñu wax nan noppi d'accord d'accord merci beaucoup Amadou waxtu bi def du ñu ko may ñu waxtaanee lépp yoo gaawal ñëw rek ñu daal di def plateau bi dégg nga incha allah allez merci beaucoup merci merci.